Seydina Fall Bougazelli tey lay janoog procureur de la république ci mbirum faux yi nu koy euh, tuumal euh, ci ci suba la nu ko defeere gannaaw ñaari fan yi mu def ca euh, ci garde à vue fële ca section de recherche faux billets yeeg mbirum ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñooy yónnee kay jot xaalis Euh, yu ci ci bërëb yu bëri ci ñoom nag amuñu machine ngir détecter faux billets ci ak euh, reportage Nafisatou Sila ab manifestation tey ji ci ngoon ci boulevard Centenaire euh, ñi ñu nangu seen suuf ñoom ñoo koy amal sama souf, sama bakan, wala boog sama kër sama bakan, li, mooy seen slogan forum social sénégalais dana ca bokk ngir xeex émigration clandestine pexe bi moo di jaaree ko ci mbéyum dër loolu la askanuk njëfun Farba nekk ci région bu Thiès bëgg jéem nañu ko ci ay hectare hectare njëriñ la gis nañu ko ba noppi biti réew buñ ca yegsee soxna Naata Mbay lañ ciy àndal Naata nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom fële ca Guinée Bissau nag tey la campagne électorale bi di jeex ñoom askan wi fas yéene dem ca bañ gàccee dimanche tànn njiitu réew bu bees candidat bu PAIGC moom nee na wóolu na réew ma ña fa nekk ak seenu mat Domingos Simões Pereira moom nee na mbëbëtam bu gën a rëy mooy fexe ba réew mi ànd ak dal. dinañ ko dégg ci biir xibaar yi parlementaire yu euh, cdao dañoo lànk bañ a adopté rapport bi ñeel situation politique ca Guinée député yi nee nañu nag texte boobule dafa war a jaar euh, laata lu ne ca commission euh, bi ñu dénk affaire politique foofule Barthélémy. yaatal gi ci kanam soxna nata mbay Cheikh Tidiane Diagne Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy ay wala andi. football euh, tefes gi danañ ko daal di waxtaanee di beach soccer coupe du monde bi nag daal dina door ni ki démb waaye Sénégal tey jii lay di soobu ci gile jongante digganteem ak Russie ci 19 h di capitale di amale euh, di xam moo di manager équipe nationale bu Sénégal di wax pexe yi nga a a am ndam suñu diggante ak ñii di waa Russie bu ci Paris Saint-Germain mi nga xam te ni tey jii ci ngoon 19 h 45 digganteem ak Lille loolu bokk ci 14e journée bu championnat de France. yaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne euh, yéenekaay yi daañu ci and ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak euh, tey ak RFM tay ñuy waxtane ajub mak bi ak ciow li ci juddu euh, diggante privé yeeg commission bi. Barthélémy Ngom Aliou Ba moo fare ci machine mbok yi ñu dem légui ci palais de justice fekki Papa Balla Gueye Papa Balla nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy ci subaak léegi la ñu defeere kii di Seydina Bouga Seydina Fall Bougazeli ci mbirum faux billets yi ñu koy tuumal mu war cee waxtaan ak procureur de la République waaye ba léegi dafa mel ni mu ngi toog di xaar waaw comme ni nga ko waxee Barthélemy euh, ñu ngi fii euh, fi nga xam ne moom mooy palais de justice euh, gannaaw ba nga xamante itam kii di Seydina Fall Bougazelli defeere nañu ko ci parquet bi ci suba ba tey ji nag ñu ngi xaarandi ngir mu daal di janook ki nga xam ne moom mooy procureur de la république gannaaw ñaari fan yoo xamante ne ma ngi ko nekkoon ca garde à section de recherche bu Koloban euh, moom nag euh, nekkoon fi député ñu ko japp ci mbirum euh, lo xam lu ñu njort la maanaam trafic faux billets boobaak léegi nag ci ay xibaar ñu am mu nga nekk moom Seydina Fall Bougazelli ca CAF ba jamono yi nak dara yënguul ndax gannaaw ki nga xam mom moy Assane Dioma Ndiaye maître Assane Dioma Ndiaye ba mu fi jaaree mom nak xam la ne bokul ci ñi nga xamantene ñoko ñoo layal waaye nag daf fi jaaroon rek doon ko daal di nemmeeku uh, kii uh, di avocat bi nga xam ne nag boobaak léegi uh, moom la ñuy dégg ci mbir yi muy maître El juf moom jokkoo gi ñu mujj jokkoo moom mu ngi xam ne ne mu ngi fas yéene ñëw fi nga xamante ne moom mooy palais de justice ngir daal di mën a ànd ak clientam bi mu daal di mën a janook procureur de la république nga xamante ne ñoom ci lu ñu njot dal fi lekk ngoon mm. mën naa am ñu daal di mën a janook ki nga xam ne moo tax ñu daal di ko fi indi muy procureur de la république taskati xibaar yi itam ñoom comme ni ñu koy defee saa su ñoo ngi fi di di xam mbir yi fan lay mujjee ah, fileeg ngoon ni Ngom mu nekkoon Papa Balla Gueye fii ci tribunal bu Dakar. Mhm. jërëjëf jërëjëf Papa Balla Gueye mi ñuy toppal loolee Seydina Fall gazeli ñu déféré ko tey ci kanamu procureur de la République ñett eh, wala ñeenti mbir nag ñoo ci mën am oh, retour de parquet mandat de dépôt contrôle judiciaire wala sax ñu daal di ko bàyyi eh, ci ndaje boobu nga xamante ni eh, dina ko seq ak procureur de la République ci kanam ci mbirum faux billets yi faux billets yooyu nag ba tey bari bari na bërëb yu bari fii ci Sénégal yoo xamante ni dañuy yónnee ko jot xaalis waaye coow li moo di ñu ci bari ci ñoom am nu ay machine ngir détecter faux billets Nafissatou Sylla bañu leen laajee ba xam xam nañu naka la ñuy def ba daal di ràññee lii di faux billet du benn service transfert d'argent bu wax ni am na machine boo xamante ne dana ko dimbali mu ràññeetle leen ñoom daal seen i pexe rek la ñu yore. man yàgg naa ci quoi. même billet bi nii su ma ko téye nii sax dinaa xam ne faux billet la wala du faux billet. bu dee kii montant bu xaw a bëri la quoi. des fois machine yi ngay jaay pour nga vérifier na billet bi baax na wala déet des fois du nekk machine bu baax wala parfois nga jënd ko aussi du nekk du fiable à 100 pour cent. Ismaïla Bani moom da koy saytu. bu baax a baax ak bëtam jël sa temps nga compter xaalis bi bii moo gën taal bii dafay xaw a niroo kay tuuti quoi waaw xam naa biñ koy raxas xam naa lu dul set duñ ko mën raxasee comme original bi te encore bii du am logo bi doo ci gis encore dix mille francs bi ka logo baa ngi ni dix mille francs bii nii bii du ko am te encore boo xoolee day am benn rëdd bii tamit du ko mun am quoi loolu mooy différence Mariama Jonn ni moom su xelam teeyee du laal benn xaalis rawatina lii di ay devise nit nañu indi la xaalis bu bëri suñu xel teey wala mu indil ñu chèque wala mu indil ñu dollar duñ ko nangoo jël parce que duñ xam ba xam

ñuy jëfandikoo xaalis saa su ne danañu mën a xam ba xam billet yi baax naam déet. Nafisatu la boo yëngu cib xaalis moom bu boo wuti machine ngir mën a détecter faux billet ndax faux billet yi moom daa mel ni bari na fii ci euh, mim réew di Sénégal juróom-ñaari simili moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM Radio rajo bi gën a askan wi. RFM Radio bi jaamu seen soxla. ab manifestation tay ci ngone ci boulevard euh, du centenaire ñi ñu nangu seen suuf ñom ñoo amal sama souff, sama bakan, wala sama souff, sama euh, sama sama kër sama bakan. Li moy seen slogan forum social sénégalais euh, dana ci bok ñu tewlu ci Mignane Diouf mi nga xamanteni mooy ba ci téléphone beeg Georges de Diop. depuis 2010. dafa melni ni li nga xamanteni moy suñu momé lu suuf. am na ñoo xamante ni ñoo ngi koy jéem a akimo ñu jóge ci bitim réew ak ñu jóge ci biir réew mi fii doon ay promoteur ñu jóge bitim réew doon souvent ay instituts yoo xam ne dañu wut pour ñu investir seeni xaalis ndax xëy na euh, am luñ ci góobee muy lekk wala euh, énergie ñu gis itam ne am na béréb yu bari yoo xamante ni mel ni ci waawoon fël dafa am ay sénégalais yu doon liggéey di doon jéem a organisé wu ba am astut ñu tabax seen kër ñu jox leen ay délibération yoo xamante ni maire yi moo ko signé ñu nekk ak seen i njaboot dañuy commencé di jàng ñi di commencé di di wut sax ay liggéey ñu yeewu benn bés ñu ñëw daaj ji seen i kër toj ko dàq leen ci biti génn seen i ñu gis itam lu mel noonu am na gàddaay atam lu ñu mel am na ci Anne Maris nga xamante ni ñi fa nekkoon ci immeuble yooyu dañoo jëndoon ay kër jëndee ko ci HLM moom réew mee ko moom nguur gee ko yore yooyu yëpp boo ko boolee dafay mel ni dañ gis ne li nga xamante ni mooy sunu suuf aakiimo bi mu ngi bëgg a ëpp loxo ba tax ñuy détruire ay nit di déguerpir ay nit di dax ay nit di xañ ay nit di jox ñeneen ñoo xamante ne ay promoteur lañu di leen jox ci suñu domaine national yooyu nag ñu ne warta doon loo xamante ni dafay continuer moo tax collectif yooyu yëpp daje woon fan yële ci benn conférence de presse jàpp ne te daañu dox ñaxtu xamal nguur gi ne bu ci waxul bu ci doxul mën na am li ci juddu ëllëg du doon lu baax ci ñun ñëpp ci biir réew mi wàllu suuf la ñuy yëngu muy ñiy yëngu ci wàllum mbéyum dër euh, mooy ña dëkkee ca euh, Njëfun euh, Farba dëkk la bu nekk ci région bu Thiès ñu ne ci loolu sax lañu mën a jaare ngir xeex lii di émigration clandestine jéem nañ ko ci ay hectares hectares ba jamono ji gis nañ ca njëriñ Cheikh Anta ñi ngi fii ci dëkk bi ñuy wax far Farba nekk ci commune ab Toubatoul fii de soxna yi ak ndaw ñi dañ daan faral nag di dem ci dëkk yi cees Ndakaaru ak dëkk yi ko wër ngir mën fa amum xëy tey jii de nee nañ dañoo bëgg des ci dëkk bi mbay mbayam dër fexe nag ba kenn dootul génnati di di uti feneen kii nga xamante ne moom mooy Julie Cissé nekk ci Gipsoir jàppale leen gis ne lu am solo la. ñu gis ngeen déjà avec ce peu d'investissement li mu commencé soppi ci dëkk bi ndaw wax nañu wax nañu heures cinq heures du matin lañ fi doon jógee dem ci toolu jas ñuy witti haricot ñuy witti yeneen légumes suuf sedd lañ fi ñëwaat foofu doo xam loo xam sa kër loolu nee nañu jeex ñu ngi organiser wu seen biir tool te juillet léegi ci campagne hivernale bi diggante kanja batañse ak jaxatu tamaate am nañ fi liggéey bu am solo yéen a ngi ci tool boo xam ne quatre hectares la jigéen ñi ñoo ko moom ñaari hectares la ñu laajoon mais léegi jig góor ñi ñu ngi am vision Abdou Ndiaye mi nga xamante ne bokk na ci yombalkat yi nee na projet la boo xamante ne dina tax jigéen ñi a demal seen bopp te ndool de dina dëddu dëkk bi tool bi ku fi ñëw ubbi sa bët gis ñaam bi gis batañse gis papaaya loolu vraiment ñu koy sant yàlla li ñu yaakaar ci ndox yëpp pour mën a arroser tool bi dana ci daje yàlla dimbali nañu ginnaaw forage bi ndox moom yëpp daal ci wàllu sakkan daje na fi ba nga xam ne dina matale pour li ñu ko doon doy ñoom sax ñu ngi ciy sàkku nag nguur gi ñu taxawu leen ndaxte ñi am xalaat bi de ñu ñu war a jàppale lañ dëkk bii di Ndioufine Farba nee nañ ñoom tey ji de ñu ngi ci mbay mi te li ñuy def nii de di ci amee koom dëkk dëkkaan yi leen wër yëpp ñu ngi leen ciy toppandoo te it am solo la RFM Thiès Cheikh Anta Diop. wax ci wàllum dialogue politique bi nga xamante ni ñu ngi koy wéyal waaye ci jamono ji dafa mel ni lu amee gàllankoor rawatina ci mbirum coalition yi loolu nag neexul benn yoon ñu faree ci kujje politique bi ndax ne ñu daal bu ñu sañoon ñu bàyyi ñi mën a lëngoo lëngoo te daal di dox dem seen yoon Déthié Fall ci micro euh, ci Jokkobek euh, Georges Déthié Diop. ñoo ngi ci waxtaan waxtaan bu am solo ndaxte pour ñun ci wàllu rationalisation wu jëm ci loolu te waxuñu coalition di encourager tamit coalition yi ndaxte loolu day tax ñuy gën a organiser élection yi ci nu mu gënee jaaree yoon mais tamit xam ni ñun ci opposition bi dañu bëgg ni garantir liberté de mouvement ou parti politique nga xam ni duñu nekk fii di légiférer ci coalition yi mais permettre à ce que ñi nga xam ñoo coalition après définir benn règlement intérieur ci ni ak bien évidemment biñ ci aussi type de coalition coalition coalition électorale élection réduite. coalition nga coalition parlementaire comme li au niveau de l'assemblée dañ tous groupes parlementaires am na coalition yi nga aussi coalition gouvernementale le comme Benno Bokk et autres mais pour chaque type de coalition nous voulons définir lan mission définir son mode de fonctionnement tout en garantissant comme nous l'avons ko la liberté de mouvement yi nga au niveau de l'opposition nous nu tenir à cœur euh, euh, vice-président du parti ou parti euh, Idrissa Sec. élection président élection njiital wala boog pal Palguignel, chambre de commerce Boudakar, Dakar niki altine lañ amal Serigne Boup bu sañoon daal ñu jaaree ko ci euh, woote même su fekkee ne sax consensus mën na am ci diggante ñaari candidat yi moom njiital chambre de commerce bu Kaolack nee na nag euh, dootul euh, briguer beneen mandat waanaam daal dootul postuler ngir jiite chambre de commerce boobu leen nekk ca Kaolack ñu teewlu ko moo nekkoon gën ak RFM Matin. consensus moom kenn du ko bañ. waaye euh, démocratie daanaka bañul consensus waaye du du du priorité je pense que permettre nit ñi exprimer wu euh, débat am ci su fekkee consensus amul tamit ñu may pour la première fois chambre de commerce élu ñooñu ñu taxaw tànn ki nga xam ne ni moo leen neex te ñu tànn ko ci base boo xam ne je pense que ñoom ñi ngi nekk di def ay consultation di def campagne ñaar yëpp mën a nekk mais li gën ci démocratie mooy comme ni ko loi bi waxee ñu dem ñu voter avec des isoloirs nga xam ne wóor nañu nit ñi nit ñi ki ñu tànn dañ ko tànn seen xol li ma gënal li gën mooy ak déggoo déggoo bu amee xëy na dinaan élection amul mais déggoo léeg-léeg bu amee rek am na comme léger parce que tey sax kenn mënul wax ne déggoo dana am mën nañu waxtaan ñaari candidat ba d' accord ñu dem ba ci place bi kenn tàllal ne candidat la ci Kaolack gi nga xam ne yaa fa jiite chambre de commerce bi nga yëkkati kaddu ay weer a ngi nii ne bu élection locale amee da doon candidat ca mairie ba xàccoon

cinq ans yi man deux mille vingt bu élection amee waruma présenté wu waruma présenté parce que daanaka def nañ dix ans yi waaye nag man sama déontologie moo ma may du ma fa toogaat man yaakaar naa chambre de commerce bu ñu amaat sax duñu ma ci déggaat mairie Kaolack moo ma intéressé li may programme bi may proposé population bu ñu ko nangoo ànd ceeg man ñu liggéey ñu liggéey bu ñu ko nanguwul ma continuer sama liggéey ci biir dëkk ba mu nekkoon euh, seriñ Mboup euh, ma fàttali leen ko moom moon nekkoon euh, gan ak RFM matin moom jiital chambre de commerce bu Kaolack dakaar nag ci lu dootul yàgg panneau publicitaire yeeg yeneen objets yi nga xamante ni dañ koy seen muy xatal yoon yu mag yi daanaka benn dootu ci des bu ñu sukkandikoo ci dogal gi tukkee ci préfet bu dakaar lépp la bëgg dindi ndax acte 3 décentralisation bi bokk na ci li ko waral ñeent fukki régie la ñu enregistré fii ci Sénégal waaye nag ña ca yëngu nee nañ daal bu ñu sañoon ñu gën leen a organiser

ci ay panneaux publicitaires maanaam jéggi na dayo donc jéggi dayo boobu li ko indi mooy ngi démarré ci acte trois bi nga xamante ne mooy permettre woon communes yi nga xamante ne ñoo ñoom lañu ñu woon yu bees ñu joxe ay autorisation li xaw a dënk tuuti mooy joxe autorisation kan ka jox ak koo koy jox ak koy joxe loolu yëpp identifié wuñu ko maanaam communes yi jëluñu en compte li nga xamante ne jotoon nañ ko liggéey ci Dakar ba nga xam ne identifié woon nañu lépp li nga xamante ne mooy possibilité li Dakar mënoon jël comme support publicitaire autorisation bi moom moom dafa laaj depuis parce que ñun loi bi nga xamante xamante ne moom la ñu amoon loi bi nga xam moom moo tënkoon loi boobu beneen loi ñëw na ci muy loi de la publicité la loi 83 20 muy organiser secteur publicité mais loi boobu ba léegi décret d'application am moo génnagul pour ñi wax ne naka la ñuy te si biir loi boobu ñi ngi wax ne pour mën a gérer publicité bi il faut que mu am organe central boo xamante ne moom la ñu au conseil de la publicité moom mooy agréé agence yi moom mooy agréé agence conseil yi mooy agréé RFM bitim Réo. soxna Naata Mbaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy. ñu dem ci réewum Nouakchott ca Guinée bi ca Guinée Bissau. Mhm. foofu nag daanaka ñaari fan a ngir ñu amal seen élection palum njiitu réew ma waaye nag euh, candidat wu PAIGC moom nee na am ci njort gu rafet. am na gu rafet rawatina ci matuk askan wi moom Simon Esperera mom euh, moom kon premier ministre nag di woo euh, mboolem Bissau Guinée ñu ne ñu fexe ba dal ñëwaat ci réew moomule te ci loxoom rek la mën jaar loolee la jàpp ndax li ko yitteel mooy ba gën a Euh, askan wi ak li ñuy dundee Domingos Simões Pereira ñu déglu ko ci jokkoo beeg Georges Détié Diop. Je crois au phénomène démocratique. Euh, c'est dama gëm li nga xam ne ne mooy démocratie ndax askan wi moom mooy décider ndax ñoom ñooñee sax di diiru ñeenti at xool nañ bu baax ubbi nañ seeni gët ci kan la ñuy falaat li nga xam ne nag mooy politique dafa mës a nekk sama gëm-gëm te nëruwul benn yoon li nga xam ne ne mooy ay fayonte te gëm naa ne tamit ñeneen ñi loolu la gëm dama bëgg dajale askanu Guinée yépp

ji nak la campagne électorale bi di jeex foofee Bissau Guinéen yi dimanche euh, Barthélemy la ñuy dem ca bañ gàcce ya tan njitu rew bu bees ci fuk ak ñaari candidat yi bokk na ci chef de l'état sortant José Mario Vaz. waaw coowal politique boobule ci Guinée sax bokk na ci li ñuy ci session parlementaire euh, wala ci Guinée Conakry. benen Guinée gi voilà euh, waaw politique ba fa nek bokk na ci li parlementaire yu cdao yi di waxtaanee ci sen ndaje ma fële ca Abuja député yi nak dañoo bagn né duñu ado

député yëpp booloo renvoyé rapport bi gën présenté ca commission ba yor wàllum politique jàmm ak sécurité ci parlement bi fësal seen tiitaange ci jamono ji lay xew ci Guinée Alexandre Sankara ci député Burkina Faso. nous avons interpellé la direction du parlement. situation bi lay ñun ñëpp la jaaxal ba tax sàkku nañ ci parlement cdao bi mu jël ci ay matuwaay ndaxte lii dafa laaj fagaru te li ñuy xaar sax mooy parlement bi yónnee ab mission fële ca Guinée ndax situation bi dafa war a leer. ci kanamu seen naataango député yu Guinée jéem nañu dalal xel yi waaye nag parlementaire yi ñoom seen xel dalul benn yoon bi ñuy présenté rapport bi li dal député guinéen yi sorewul dara ak camouflet diplomatique Hadja Aïssata Daffé bokk ci délégation guinéenne bi muy woo nag CEDEAO ngir mu gën a mën a sóob ay yoxoom ci mbir mi. vraiment on n'a connu ça et c'est pas le la Guinée. ñun Guinée xamuñu lii mosuñu ko dund xool leen suñu dëkkandoo yi Sierra Leone dund na ko Libéria Mali sax xam na ko ñu bëgg daal mooy euh, CEDEAO Diallo gën a sóob loxoom ci waxtaan bi ba nga xamante ne mbir yi dina mën a dakk jàllu gi eh, Guinée nekk ci guddi gu bër bërsategul jamono ji ay violence di fa am CEDEAO nag ni ko génne yépp di xaar déclaration président Alpha Condé ngir xam ndax waaw wala déet dafa war a indi ay coppite ci charte réew ma mu nekkoon seen naataango Fama Dione fii ci Abuja pour RFM. Fama Dione soxna naata ñu dem ci euh, fii ci dendu Sénégal ci Mauritanie ak Biram Da Abeit féete ca kujje ba moom nag mayul dara euh, moom euh, opposant bi ne jarul sikki sàkk sax jamono ji réew mi euh, nee na ñaari nit ñoo ko jiitee muy njiitu réew ma ak bu bees bi Mohamed Ould Abdelaziz ak Mohamed Ould Ghazouani li koy firndeel nee na mooy euh, benn ndaje à huis maanaam bu ñu bëri fekkeewul boo xamante ni Mohamed Ould Abdelaziz ci boppam moo ko jiite Biram Da Abe doon jàkkaarloog taskatu xabaare yi ca Nouakchott ay kàddoom Mohamed Diop suñu ndaw la ñu fa teewal moo ko taataan.

Depuis am ñoo ànd ñoo et je veux dire qu'ils sont toujours un duo au pouvoir qu'ils sont au pouvoir tous les deux waaw ma ngoog Mouhamed Diop euh, suñu ndaw la ca Mauritanie moo doon euh, tekki ay kàddoom soxna naata euh, kane woon ministre de la justice bu Nigéria teg nañ ko loxo fële ca Dubaï. Mouhamed Aduke lay wuyoo nekkoon na it procureur général Interpol moo ko teg loxo bu ñu sukkandikoo ci avocat am dafa demoon foofee ca Émirats arabes unis ngir daal di faju avril bële weesu nag benn tribunal bu Nigéria moom moo génn ay mandat d'arrêt jagleel ko Aduke moomule ak beneen ministre bu ñu dénkoon pétrole di daan leen di tudd ci benn mbirum guerre euh, mi ngi ñeel benn accord pétrolier xaalis bi nag toll na ci 1 euh, milliard 300 millions de dollars boo koy xayma ci sunuy koppar ci wàllum franc CFA 770 euh, milliards de franc CFA la ñu cay tudd ay compagnie pétrolière bi di Eni ak Shell. Niger dafa bëgg soppi hymne national am juróom fukki at gannaaw ba mu moomee boppam. ndax li ko waral bàttali mi dañoo jàpp ni benn pàcc ci hymne national boobu boobule daal dafay mel ni dañ ci kañ euh, lii di France mu doon euh, pays colonisateur bi ministre de la renaissance euh, culturel nee na faw ñu ut benn texte boo xamante ni ku ko dégg daal foofee ca Niger daal di nga yëngu sa fibre patriotique rawatina nga am ci am mbégte am na benn comité bu ñu fa taxawal moom moo nar a bind hymne bu bees boobule ñu ko seq nag

trophée waaw hymne Sénégal nag dinañ ko fa rëkk waaw hymne mhm. Sénégal googu nga xamante moo di Pincetus Vocora tey ah. tey dinañ ko daal di rëkk ca Asunción ca Paraguay foofu la ñuy daal nga xamante moo di mondial bu beach soccer Sénégal fas yéene ci soobu tey ji ci bu 19 et quart jotee diggam ak Russie lay daal doon ñu dem ba foofu fekk fa suñu jigéen bi ñu fa yebal di Soda Thiam ngir jonganteem gu njëkk ci gile édition Sénégal naka dina jàkkaarloo ak Russie mu ab équipe gu mag gu ñu ràññee ci wàllum beach hockey ay at ngi nii niñ ko nemmeekoo ci côté Sénégal waa Russie itam ñi ngi amal seen coupe du gu njëkk ci atum 2007 ci at woowee nag dépassé wu ñu woon na phase de groupe bi waaye ci atum 2008 ak atum 2009 ñoom Russie yi dañoo daal di àgg ba ca quart de finale yi loolee nag mel ni daf leen a yee ne si nañu daal di jugee jaxase gi yi ba édition ga ca topp di atum 2011 ñu daal di seen trophée gu njëkk ci coupe du monde at wa ca topp atum 2013 ñu daal koy làbbaliwaat waaye nag yi ci atum 2015 dañoo daal di ñàkk seen titre champion du monde googule nga xamante ni tegle woon na ñaari yoon di ko gagné ci ñetteelu place bi nañu mujjee woon ci atum 2015 googule waaye nag édition ga ca topp di atum 2017 ca Bahamas ndawuka Mikhail Likhachev jotuñu woon na bokk ci googule édition waaye nag lu jëm ci atum 2019 gi dafa mel ni yi bëgg na delloo buum ca boy boy ga la ko firndeel moo di ci qualification européenne yi juróom-ñetti jongante yim ci amal yépp daf ko daal di gàddu Russie itam ci fàttali jël na ñeenti yoon li nga xamante ni moom moo di euro British League naka noonu itam ñaari yoon coupe d'Europe bu British ci noonee nag kon naataango Alseyni Ndiaye yi xam nan la leen di xaar niki tey ji ci ngoon bu juróom-ñaari waxtu weesoo fukki simi lekk juróom seen digganteek Russie mu ne woon Sodé Thiam fii ci Asunción Paraguay ngir radio Futur Media. Soda Thiam dañuy daal di desandi ak yow ndax kii di Ibrahima Ndiaye Chita mi nga xam moo di manager général bu équipe bi am na ay kàddu yi nga xam te ne yëkkati na ko jëmale ko ci gile match ak pexe yi nga xam te ne moom la Sénégal war a lal ngir mën a am ndam ci digganteem ak Russie tey ci ngoon ñu déglu ko Ibrahima Ndiaye Chita. nañu fexe rek ba matsu tey bi incha allah ñu ànd ci ak calme sérénité bañ yàkkamti def ndànk ak ñoom. parce que man gëm naa ne ne ñoom ñemewuñu euh, Russie nekk na deux fois euh, champion du monde man na naan amu fi ay ay ay ay discours yu soreex yu gudd yu ay tactiquement wala techniquement wala yooyu yëpp vous maîtrisez mais li ci des mooy xeex bi ñu fexe daal ba première chose bi ëpp solo mooy ñu bañ a teel a encaissé bi wala di nangu Russie di ñu jiital parce que day métti pour nga dellu siwaat si ñoom mais ñoo nañ fexe ba di leen jiital rek ci loolu lan nga jot a dénk gaynde yi ci jongante gi war a am seen digganteek Russie mi nga xamante ni dëkk bu mag la léegi ci wàllu mbittu chaka euh, gëm-gëm la rek match yi nii gëm-gëm la man lu démbali man confirmé na euh, li nga xam ne man moom laa gëm nii te wax leen ko tey ci suba naa leen match yi du match ay technique ay tactique yooyu c'est fini quoi euh, affaire bi xeex la ci biir terrain bi combat la ci biir terrain bi parce que li ñu gis démb ay combat la a ah. finalement tu te dis que bon où est la technique où est la tactique etc etc et arriver à un certain moment où il faut se battre c'est tout ñu bañu jël match bi aussi yenn nous ko yenu ah, ça fait sept coupes de monde yang ngi koy joué war nga am expérience ben bi quoi ñu baña a di suñu football ah, def niñ doon def rek xam nga Russie gagner na Sénégal dañ c'est tout à fait normal mais Sénégal gagne na Russie kooku on man nee naa si bu ngeen gagné Russie on joue la finale incha allah de la coupe du monde. waaw ci war na mën a nekk. Euh, hmm. gaynde yi bit ci soccer yi moom daanaka ay guerrier lañ. ay guerrier lañ gañ ñu fi benn bu dul ñaari coupe dafa. waaw hmm. gañ ay guerrier lañ ñaanal leen rek yàlla may leen ndam ci euh, coupe du monde boobu les Cheikh Tidiane ñu wax ci euh, football. Euh, waaye nag bii ci terrain bi. waaw ca euh, biti réew waaw ca France. waaw quatorzième journée bu seen championnat danañ ko daal di door ni ki diggante Paris Saint-Germain ak Lille Paris Saint-Germain féetee ci bopp raw gàddu gi la ca des nag ci wàllu jogante ni nga daal di yegale ni samedi jàpp dimanche ca Angleterre ñoom seen treizième journée ëllëg lañ koy daal di door xel dem ci Tottenham ak seen entraîneur bu bees bi euh, di José Mourinho ñoom nag dañu amal déplacement ëllëg ci bu 15 fekk Crystal Palace 17h30 samedi gi Manchester City ak ñi euh, Chelsea Espagne ñu 14e journée lañ koy 20h Levante ak Mallorca dañ daal di FC Barcelone moom ëllëg lay daal di amal déplacement ci bu Madrid moom dana 17h30 ñi Granada seen 20h diggante Real Madrid lay daal doon ak ñi Real Sociedad championnat bu Italie ñoom ñu ngi 13e journée 14h ëllëg di samedi seen euh, maanaam Atalanta dana tase ñi di waa ci place bu njëkk bi ci classement bi Napoli bu Kalidou Koulibaly moom dana fekk ci bu 17h jotee ñi Milan AC Inter de Milan dana fekk Torino ca dëkkam leneen li nga xam daal mën nañ ko wax ci championnat yi ca biti moo di championnat bu Allemagne ñu ngi seen 12 journée tey lañ koy daal door diggante Dortmund ak Paderborn ba ci wàllu jogante ëllëg lañ koy fas yéene yeggali ñu mën cee